di leen euh, wax rek comme li leen doon wax rek ngeen koy jënd comme ça di si jàpp comme ça nga xam ne émission bi dafay gën a am développement si kaw loolu ñu ngi leen ni dalal jàmm di dalal jàmm suñu invité ñu ngi koy nuyu di ko gërëm ci disponibilité bi mu am bañ a wuyu si ñu kon invité ñu ngi lay nuyu di la nga présenté wul sa bopp comme ça nit ñi xam kan lañ dalal tey. asalaamaaleykum wa rahmatullah ginaaw bu ma sante yalla julli ci yonant bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi nuyu ñepp di ziar ñepp Ousmane di nuyu wa xewal TV yep di ñaanal yalla borom daara ji yalla suñu borom yok ko jam yok ko wer doli ko euh di xamal ni ma ngi tuddu Adja Ndeye Niang eh, dëkk Cité Lamy ko ñu ASC Étoile. Adja Ndeye ñi ngi lay ziar di la dalal jam ko ñu ko waxe di la bëgg laaj laaj bi ñëk Adja Ndeye en tant que jigéen lan moo la boole ak mouvement nawetaan. waaw loolu soo ma ko laajee dinaa ci sawar eh, liñ ne bëgg-bëgg mooy sonal boroom eh, nawetaan moom li ma booleek moom sama benn frère la bu ñuy wax xawsu ñaa Omar ñaa la tudd ñu gën koo xam xaw xawsu ñaa ma koy ñaanal yàlla yal na yàlla xare ko aljana si génn na àdduna bi may xale moo ma doon jël di ma yóbbu stade ñi fubal nawetaan mu di ma yóbbu di jàpp ci sama loxo. ba ma tàmm ci loolu ba continuer ndax moom sportif la commission sportif la yoroon. très moom bi mu la booleeg nawetaan nawetaan ay ASC ñoom ñoo koy def mais dañoo yow da nga choisir ASC étoile lan moo la booleeg ASC étoile. waaw li ma booleek ASC étoile mooy biir ASC étoile falaa dëkk falaa laa juddoo falaa laa yaroo fa laa màgge sama frère boobu tam bi may yóbbu ci nawetaan boobu ñoom Mamadou Diop ak ñoom Mbor ñoo doon fubal étoile muy ànd ak Mamadou Diop Mamadou Diop di xaritam. may and ak moom mu yor sen commission sportif nek ci bir ASC bi di ma may setan football nawetan lol mom ma ASC étoile ma gimmi ci nak min ko xam équipe bi top équipe bi mu nek sama passion ma dem ba gën ko bëgg ku koy bëgg. wa ci bir ASC étoile bobu dugg naa si ASC étoile am suñu bëri ñuma la génération par génération génération yi nga xam yu yi nga xam ne ñoo danaka sante étoile ba ñi muju yu bari fekkee si nga ko génération yu baree bari dem naa si laaj ñoom grand sëriñ seen ñoom yàgg na nee na ñoom ñoom daan fubal yow da nga leen daan toggal nga jóge si togg di dem di dem di dem ba jiite ASC bi doon président bi mais loolu xawoon ma jaaxal trop jóge si togg dem en tant que jigéen di fexe ba étoile bi yépp wóolu la jox la présidence bi loolu moo indi loolu. waaw balaa maa dem ci étoile jël présidence sax nekk naa délégué ASC bi. parce que bi ma nekkee commission féminine bi laa yoroon ne président balaa ma koy doon damaa nekkoon ak groupe ñi nekk commission féminine nekk group ñoom Marie Ndiaye ne fa di togg ñoom Marie Ndiaye ñoom Ndeye Dia ñoo doon togg Ndeye Dia c'est une sœur à Mahi Mamadou Dia ñoo doon togg ma nekk ak ñoom di fa dem ba ñoom Ndeye ja bàyyi jël relève bi teg ko ci loxo ñun ñoom Marie Ndiaye ñu nekk group ay awandooy ay Marie Ndiaye ak man mi ma ne fa ñoom maane ñu nekk benn groupe ba ñoom ñu dekkaan dem bàyyiwaat ma fa ak génération man ma continuer yoraat ko ba former xale yi ba def ko ay cellule ñu mujj di def par cellule cellule bu ne bu ayee beneen cellule togg équipe bi dem na ba daanaka daawul sonn parce que cellules yi ñoo doon jël togg yi daanaka premier tour équipe bi yëpp ay cellules la koy togg ndax dañu mujjoon découper étoile def ko ay cellules yu bëri pour cellule bu ne bu équipe bi dee match mu jël kii foofu laa jiite. ma nekk biir étoile di liggéey am ñu ma gis man zone la ma fa yóbbu. du waa étoile sax yegg si guñ si waaw étoile parce que da nga jógee si togg à l'âge de 13 ans bi ma laajtee lañ ma wax nga dem ba jiite ASC bi loolu moom daanaka mën nañ ni mérite la commencé si togg ba jiite ko mérite la mais dafa ay joueurs yoo xam ne laaj naa leen sa ñëpp bokkuñ génération ku su mel ni Daado ASC gardien laaj naa ko mu waxal ma par exemple yow prime sax da leen ko daan jox yow en tant que femme nii boobu nekk koo près nag leen daan jox prime Paul Aw nee na ma yow yaa fekk ba Dakar seeti ko fa jëli ko waxtaan ak moom indi ko ASC étoile ba pare lépp loo mës a wax ak moom nag def nga ko Paul Awa moo wax loolu ma demaat si ngaññaa ngaññaa xamal ma ni ñoom bu ñëwee étoile yow yaa ko waral te ba nga bàyyee aussi dafa bàyyi dem ànd ak yow waaye léegi génération yooyu yëpp dajaloo woo naa tamit euh, Issa Aw Issa Aw aussi wax ma laa même chose génération yëpp dajaloo mais ku nekk wax ni yow yaa tax mu ñëw étoile yow yaa tax mu def lii étoile mais man li ma si jaaxal ak ni ko étoile loolu lépp après da nga faa bàyyi étoile dem beneen ASC muy ASC Concorde mais lan moo waral loolu lay waa li indi loolu Ousmane xam nga du lu ma gënal parce que loo xam ne yaa ko bay bu ma yeboo ne eh, bi ñuy jiw fa la la fekk bala bu la fa fekkulit bi ñu jiwee ba pare nga yegg si ne ca bay ma di ko bay di ko bay di ko bay ba yegg si fii boo sañoon dara du la fa jële non jële bi dañ laa daq wala da nga dama lay wax lu ma fa jële ci gàttal pour nga xam ko étoile fa laa def lépp mais xëy na bu ma développé li ma fa def yëpp bëgg ñëw ci loolu day yàq. non foo toggee ba doon ko président kay moom def ma fa def nga fa sama ko def. étoile samay empreinte li ma leen ne moo fa nekk suñ ko xaajoon trois parties deux yi maa koy jël benn bi rek laa leen di bàyyeel parce que defe naa li ma fa def gaw ma ni tey dirigeant ya fa ne tey ba bay xeex pour man ma jóge fa def ma li tax ma jóge fa ba ma fay nekk kenn ci ñoom xalaatul nekk dirigeant étoile. moom man leer na ma nañ xalaatuñu woon sax di bokk ci staff équipe bay nekk dirigeant étoile ña fa nekk tey jii di xeex lii xamuñu sax lan mooy euh, kii étoile bu ñu leen jàngaloon lan mooy étoile nan la tëddee tey mënuñu la ko wax. waaw parce que waaw parce que ASC étoile 2010 la gëjoon jël final zonal moom ak ASC Grand Thiès la woon. mu dóor ASC Grand Thiès depuis 2010 boobu gis étoile ñu bari kaw na bàyyi équipe bi équipe bi gañeetul douze mille sa nga fekk si kees gi démarré ko ñëw jël coupe zonale ñu éliminer la demi-finale en cas de jàmbaar moo la éliminé nga dóor euh, ay say parcelles je crois que ay say club culturel nga gagné en finale. mais loolu lépp boo ko defee ma gis sa trésorier trésorier bi nee na ma def ngeen bilan bu baax. am ngeen résultat côté résultat am ngeen résultat côté xaalis bi aussi leer ngeen ko ba mu leer. ana bis topp nga jóge fa dem Concorde mais nan nga mën a expliquer benn moment man xam naa li gën a tax ñu jële ma ASC lan moo tax ñu jële la mer bu ñu dencoon la parce que euh, na avant may jël équipe bi en 2016 non xaar xam nga tax ñu jële la dama lay may defal ndànk rek en 2016 en 2015 waaw dañu ñëw ni étoile équipe la boo xam ne doxatul kenn nekkatul may ma rek ma may la jàpp kenn jàppatul étoile dootatul équipe bu mag dootul dara bi ñu ko waxee taxaw ne moo tax ñu bëgg a jël étoile fusionné ko ak juboo jàmbaar ak gelawaar ak concorde waaw ak concorde léegi bi ñu waxee loolu ma def lecture bi xool bi ñu demee ci réunion bi ñu ne dañuy fusionner ma xool waa concorde rasu ni këppu ñu seen équipe fenn Ousseynou Kami ñëwoon ni moom moomul équipe bi bay këpp équipe bi ñoom ñooy xool seen bopp waa Gelawaar jaaruñu fa mhm. waa jàmbaar yi ñëwoon ni ñoom dañuy seetaat seen bopp ma xool xam ni kon équipe yi ñu waxoon yëpp ku ci ne daw nga. kon étoile waa étoile moo fa des kon dëgg lalu ko ak ak ak ak juboo léegi bi ñu ñëwee ba ci biir ñu ne même bu yeneen équipe bi d'accordul étoile moom na ànd ak juboo dem ma xam ne kon yaa yaa dee noo di am na leneen lu ci laxasu. Ah. léegi bi ma ñëwee man ñu waxtaan ci ma gis grand yi ma ci mën a waxal wax leen ni laaj leen ni leen ñoom loolu moo ci seen xalaat ñu xamal ma historique étoile avant man sax may nekk xale di di ci dugg li fi mu jaar yëpp ñu xamal ma ne ma étoile du bu ñuy këpp ci kaw équipe. ma ñëw nag foofu imposer war leen ni leen étoile c' est grande équipe. parce que d' après li ma fa def rek xam naa ne c' grande équipe mais li may mag ñi waxaat. dolli ko fàttaliku ma am ñu ne ma ñun étoile suñu image suñu bopp lañ ci gis bis bu étoile tour bi demee rek ñun suñu bopp gisatuñ ko fi affaire bi nag jox ma loolu rëy a rëy rëy gën maa yokku effort ma ñëw nag maa ñoom Serigne Sène ak ñeneen bi ñu toogee autour d'une table ay Pape Demba Ndoye ñu xamale ne étoile du équipe bu ñuy këpp noonu ak maaxi jaan ñëpp xamale ne nag léegi nañ leen xool xëy na mën nañu fusionner mais nañu dem ba ci kanam ba dox ko xam les tenants et les aboutissants ñu doog a fusionner affaire bi mu échecgee fusion boobu amul en 2000 et 16 boobu léegi ci la kalduba était le président de l'ASC ci la ni mom day baye équipe bi après bi défé defee AG mu ne nañ leen AG bu AG mu ne man damay bàyyi jëlatuma présidence bi ñëpp ni légui équipe bi nu ñuy def nu ñuy def man len je porte je porte candidat jël présidence bi président fekk ñoo am na ñu ma doon topp ci suuf jël ko jël ko jël ko même maaxi ja en fait partie ñi ma ko ah. jëlloo mu pousse ma ci maaxi ku baax ma ngi koy saluer au passage kon ñu ko jël tank ñepp desoon desoon ci équipe yi ngeen découragé woon pare ni pare ci léegi man ma porté volontaire jël ASC bi parce que amoon naa motivation ay mag yu ma xamal ni équipe bi historique am du lu ñuy caaxaane ma daal koy gën a tëye gën a am motivation xam ne man li ma bëgg ba may xale ba nii ma toll tey jii laa koy gën a tëye parce que li ma ci mag ñi wax rek war na tax man ma am courage yu en tant que jigéen porté combat bi pour wane ni étoile est une grande ASC mais bi nga ne da koy jël moom ñëpp dañ koo d'accord d'accord bu rafet sax kenn moo doon xëccoo ak man te kooku fekkee mu ngi doon doog a ñëw xamul sax lu historique bi équipe muy Moodu ah, Awa c'est un un jeune boo xam Moodu Awa la tudd moo ñëw ne day imposer pour xëccoog man nit ñi xamal ko ni ko même boo xëccoo dem vote kii lañ koy jox jarul sax wax am ñu ko doon wax ñoom maaxe ni ko jaru ko fi ay xëccoo musul am étoile bu leen ko fi indi waaw léegi moom laa wax nii comme koñ ba ni ñuy d'accord ñoom ñëpp ci lañ ma ko joxee waaw résultat bi nga dem waaw année bi ci topp dew ma yóbbu ma sama bopp parce que bi may jógee étoile togg la boo xam ne peut-être que mënuma la wax lépp. mais ci zone la démarré. Ah. mais dama lay xamal waaw xeex bi ci zone bi la démarré. parce que am mais lu seen yoon si étoile ñoom bañ koy xeex. ah xeexu étoile wala kenn koo xam ne dafa nekk étoile kan la kooku déranger leen. ñu doon xeex combat bi moo indi combat bi ci biir ñoom seen yoon si étoile. waaw ah. day am kenn ku su doon xeexoo étoile dem zone. waaw kay dina xeex. am na ñooñu collaboré ko kan la. de ah, kay looloo am nag. kan la kooku booba dem naa ba zone. waa xaaral ndey waa defal ndànk ki sokkeeku ne yaay def nag ki sokkeeku dem di la xeex ko kan la xam nga xeexu zone bi xeex ma xeexu zone bi de xeexu étoile la étoile ak zone bi yëpp la woon ñoom ñoo ànd la xeex togg bi ci zone bi la démarré dama lay wax loolu waaw non wàcc ñëw ci xam nga buy démarré ay nit ñu démarré dara du ñëpp koy démarré kenn na koy démarré ñeneen di ko jàppale xam nga tey daal ki nekk atum yi mais amul temps xeex day ñàkk ka ne parcelle yoonam si nay ñaar. xam nga li tax ma wax élément étoile kay mooy jigéen étoile dem waa zone bi xeexee leen ma diw. Mhm. mais kooku kan la. waaw loolu di ko xam. kañ lay doon. dinaa la ko eggale. ba parce que bi dinaa la non non déedéet. mënuñoo dem si ne turu nit. kon non am loo xam ne yàlla dafa bëgg si tura. non turu nit. non waa zone nag kon waa zone ñëpp nga takkal. non du ñëpp. kon waa zone yéen dem di xeex xajaar lay zone am ba am na ay noble am na nit ñu baax ñu noobul ñoo xam dama leen a naw. àdduna lu ci noonu waaw am na ay noobul nag. yéen a man d'accord man waxuma mais na dama lay xamal ne xeex bi li tax man après laay doo ko comprendre. bi ñi ko doon togg dem nañ ba foofu. non balaa nga déet non xam xeex xam ki lay kan la. yow xamoo ki xeex. may xeex xam naa leen. wax ma leen du woon kenn sax. waaw ñaar mais ki ko jiite kan la. du woon kenn sax. wala ah, yow kii lañ la xamee de. xeex bi yow wala ñëpp nee nañ ma femme bu am fit. kaay ma wax la femme bu bëgg li muy dama lay leeral parce kenn. non du la boo xam ni. parce que mm. lii c'est sérieux affaire ASC la xam nga ASC yi ma bëgg ma lancer wàllu benn message gis nga ñi nekk si kaw. Mm. nañ xam ni koñ yi ñoom leen fa teg. pour ñu def ay résultat rendre leen compte. Mm. nit war ñu laa jox benn benn benn association wala dara nga jiitu ko di si def lu ma neex. yow comme dafa am ñoo xam ne li nga def lii lépp ak ñi ma laaj ñëpp ñu xamal ma ni yow étoile mo dé sa xol ya def lépp ba mu jar la nga bàyyi li nga bëgg yow dem fenen mais kan mo waral lool wala lan mo waral lool wa mooy li ma la wax fusion bobu échec mo waral xeex bobu xeex bi kan mo ko def te ko jëlé porté ko wan len ni len étoile c'est une grande équipe. def résultat. loolu waxoon nga ko sank xam nga yow ñi la jox équipe bi. du ñom ñolay lay xeex. kan mo la doon xeex. xam nga ñu ma doon xeex. Ah. xeex bi kaldu mo mo ci jiitu. kaldu Ba. il en fait il faisait partie de lan la woon moom dafa bëggoon poste président bi wala lan moo taxoon ñoom lu tax ñu doon xeex. loo jàpp ba ma pare rek. Ba Jéggi Diagne. Jéggi Diagne même Birane Niang le président la zone bokk membre étoile ci la bokkoon. waaw Birane Niang waaw. ñëpp ñoo. waaw kon moom bu yóbboo xeex bi zone te Birane Niang ko influent la zone. Ah, bu fa yóbboo xeex bi mën nañ ci jàpp. foofu lañ ko njëkk a xeexee. waaw pour mu ñëw. y a des délégués d'autres ASC sax ñu ci bokk yoo xam ne ci zone bi la ñu ne bokk nañ ci dugal nañ ci seen main. waaw parce que zone nekkoon nga fa. parce que man xam naa li ne zone balaa ne ba tey. waaw jusqu'à présent nii zone laa trésorière loolu nañ si ñëw avant xeex bi li indi loolu yëpp kaldu ba moom fusion bi mu bëggoon mu échec foog na ne li échec lépp ci man la jóge mais ñoom looloo indi mu xeex. mais ñoom ba ñu ne xeex jéegi jaaj moom li indi xeexam mooy boobu temps poste santé bi dafa fa nekkoon. ñu yokk yor comité de santé bi mu ñëw fa fekk ñu suñu comité bi ñu liggéey ba tabax poste santé bi gis nga ni ko Idrissa Seck def. te lépp ci suñu xeex la bëgguma politique mais dama la koy waxaale rek ci xeex boobu nag bu mu ñëwee moom pour xëccoog ñun poste santé bi man may membre nekk ak moom ci koñ bokk ak moom koñ dëkkak moom bu ñëwee tey ñu wax ko dara ci poste santé mu ñëw di xëccu war na ñëw sax gisanteeg man mi dëkkal laaj ma ni ma lu xew mais bu mu ñëwee di xëccu nag ñu gagné ko. waaw ñu ko gagné man équipe bi ma ñoo ko gagné te bi man j'ai été surpris bi ma ko gisee. waaw foofu ko mu génnee wax na ay nit ni leen xeex nañ ñu fii waaye dinaa ko xeex ci équipe bi. waaw mais Adja li ma jàpp dama yaakaar ne xeexu équipe. waaw defal naa ak xeexu ay poste de santé warul ànd. mais sax mënuma gëm ñoom xeexuñu ko mais ñett nit ñooñu moomuñu étoile étoile ni mu toll si tamit gi yëpp. ñett nit ñooñu tax nga jóge fa. moomuñu étoile kon kon waa étoile ànd ak ñoom. mais déedéet dañoo def seen lobby. lobby bi nan mooy xanaa dew ba ñun bi ñu demee préparé wuñu ay assemblée générale. ay euh, defar lii ak. ay génn amul âge amul dara non non defuñu woon âge pour loolu. ñun dañu wootee man xam nga ñoom gis ma ay yoon naan ma yow dañu war a âge man leen dinañ âge ndax ñun ku jeexal da def âge def bilan ak yooyu. léegi liggéeyaat ba dëwën. man dama lay xamal leen. su ma neexoon étoile moment boobu su ma ko bëggoon. man benn du génn. ñaar loolu ñu teg lépp laay laal. parce que un mois de juillet lañ ma jox équipe bi. juillet biñ may fal PV yi ñu ma falé mu nga fa. 12500 nga fekk ci kees waaw un nga war def sax pour def AG. waaw bi on l'a fait au mois de décembre. waaw juillet ba décembre est-ce que un an la. non AG moom noy ta jeexee rek mu bu la neexee def. wa dang koy def mais. bu ñu falee. def ci suñu PV 1 an 1 an da nga wara a ba juillet. c' est le un an mais ba tey ndey waxoo ñoom nan lañ la xeexee. xam nga nan lañ ma xeexee. nan lañ la xeexee muy jóge fa dem Concorde. waaw defal ndax wala ngaa Concorde borom kër moo tax nga bàyyi étoile. non jamais man eh, Concorde sama équipe la. mos kon nan lañ la diggee étoile xam nga nan lañ fa seen lobby. ñun bi ñëwee ne dañuy def AG jéggi moo jël otoom di wër lu mu musul def. jël gaz waalam jéggi musul liggéeyal équipe bi ci maani foro fu mu mës a liggéey étoile dañ koy fay man yàgg naa ànd ak moom di collecté étoile danaan sama gasoil oto jox waaw mais xëy bi moom la bëgg du loolu jéggi xëy ñoom bëgg du loolu équipe bi luñ bëggoon boobu terrain politique moo laxasu ci biir ah, comme man damaa euh, waaw comme man damaa jiite équipe bi man dégg naa ñu naan 100 pour cent Thierno Alassane Maodo Malick ndax boobu Thierno Alassane mu ngi woon euh, APR ba pare nekkoon ministre. waaw mais am na ñu naan sax yow da nga étoile nga koo ma pour mën xam nga suñuy tendance politique ak moom ci centre si la mi. du ma ko waaw léegi nag bi ñu ñëwee may dégg ñu koy wax am ñu naa ma équipe bi dinañ ko 100 pour cent Thierno Alassane Maodo Malick man je ne je n'y parce que dama ne woon nawetaan moom ak euh, politique kenn ñemewu ko boole. loolu moom xalaatuma ko woon mukk ci àdduna dama ne moom kenn du ko mélanger loolu moom gëw ma ko ba ma ko ay xale di wax naa ma tànta ñii de ñu ngi programme ay Thierno Alassane man leen bàyyi leen yooyu yooyu taxawul loolu moom gëw ma ko mais xam nga kan laa ko gëm jour bi ñu defee seen lobby bii ba man ma génn ñu jël trois délégués zone yi ñu formé yépp nekk ay délégué Maodo Malick bay ñëpp nekk ci estafam ñëpp ci moom la ñu bokk moom la ñuy liggéeyal. mais xanaa wasala bi daan ne bi. nekk xanaa wasala bi jàppale wu ñu xam ko dégg nga ah, Moodu Awa moom doon xëccoog man. ci début bi nekk élément Moodu Malick. waaw eh, Tafa Mbaye Moustapha Mbaye la jeune sama koñ la dëkk. nekkoon élément Moodu Malick Bawol Malick moo yóbbu sa papaam Màkka. waaw kooku ñoom ñëpp ñu ne ay élément Moodu Malick. ci laay doog a gëm ni affaire bi dëgg la. ñu jël présidence bi jox ko koo xam ne jeune la woon bu doon liggéeyal Thierno Alassane Sall. kan moo ko jox présidence bi kan muy Iba. kan moo ko jox groupe ba fa nekkoon parce que ñoom ñoo pare woon. xanaa étoile ñëpp ñëwuñu woon kon. ñëwuñu de étoile ñëwuñu waa étoile ñëwuñu moteuru étoile yi tamit ñëwuñu du ma la ko nëbb parce que su doon ay moteuru étoile kese la. man du ma mës a bouger. te mais assemblée générale wax dëgg la am waa zone dañoo war a dañoo war a représentant. waaw kaay ma may la waa zone ñëw nañu parce que ba ñu toogee ba xam ne ñun yëgsi nañu woo nañu euh, daaba mu ñëw comme comme comme délégué. comme ku représenté zone ba ñëw. non mais Dabo ba ma ba ma laajte ay kii moom amul benn poste zone si zone bi Dabo moom moo ñëwoon. waaw moom moo ñëwoon bi ñu njëkkee def assemblée générale bi ñu ma fale. waaw Babacar Lo moo ñëwoon. waaw PV yaa ngi woon ak moom. bi ñuy defaat bii nii Dabo moo ñëwoon après ma gis fa Samba ñëw. pour assister neen dafa jogé réew Samba mom délégué la moom gis fa Oppa ñom ñepp ñëpp ñu ñëwandoo nak en masse lu musul am aussi waaw lu musul am j'ai été un peu surpris sax kon kon kon lobby bi ngay wax moom moo ñëwaat waaw kay Ousseynou Ka été présent aussi waaw affaire bi sax jaaxaloon parce que quatre membres zone musu ñu ñëw pourtant man ci affaire étoile pourtant man nag may ma may ma foofu ajaale pourtant man li nga ma jaaxal bima amé délégué yu ma laaj tour yi nga wax ñom la noté ni nga xamné zone ñu dafa am benn beneen zone ci bir zone zone 3 da am benen zone bu am ci bir zone bi mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy euh, Birane Niang Opa Babacar Lo Ousseynou Ka ak Daaba bu Normandie ñoom daanaka dañoo former beneen zone ci biir zone 3 kon lobby bii ngay wax kon man naa koy bëgg a gëm mais loolu yeggaguñ ci man li ma bëgg a xam mooy yow ñooñu ak yow li nga def étoile yëpp nday ba xeex ko say noonu taxaw ne la fiy jëlee. mais tax kon woo xeex boobu ni la xam nga lu tax continué ma xeex bi xeex bi du problème mu continué. problème xeex bi ba léegi maa ngi koy xeex. parce que xeex bu ma concorde bàyyi non non dinaa dem concorde parce danga may laaj nag li ma yóbbu concorde tamit. man kay maa bu génnee fenn dangay bàyyi mu développé wax la lépp. non non xam nga man bi ñëwee dañ ni waaw.

mais léegi kon nañ leen def euh, ñi choisir délégué yi rek. fekk waxtaan naa ci sëriñ ma ne ko man post présidente bi dama koy joxewaat bu amee ku bëgg dama ko koy jox. ah ñoom avant ñu dugg fekk joxe affaire bi. billaahi ah, wallaahi taalaahi boo ko laajee sëriñ dina la ko wax. ma ne ko man post président bi dama koy joxe. waaw ah, parce que résultat ba parce que amalatuma benn importance dama leen doon wan ne leen Étoile est une grande équipe comme dañ ko bëggoon foyee. ma bugg leen a woon résultat que li ñuy foyee du fowukaay. kon da nga woon intention joxe ko mais teew nga nekkaat membre ba tey. dama ne woon damay kon ne nekk membre zone. Mhm. nekkaat délégué équipe bi di liggéeyal équipe bi di leen jàppale ni ma leen doon jàppalee. dara bañ cee wàññeeku. kon xeex bi daa yegg ba zone après. waaw xeex bi dem na ba zone. zone ban bés nga ma yoroon zone la njëkk ndax man ci jour AG boobu. biñ may sax joxe nañ ko. nan lañ ko joxe nan lañ ko moo la joxoon poste zone bi. poste zone bi waa zone bi réunion woon jox nga ko. bi bañ demee seen dëkk dañu def sen consensus comme tet yoy ngay wax sen biir. def sen consensus. waxtan sen biir ñu ne équipe bu ne léegi day am ben représentant comme Birane Niang est le président de la zone. waaw Ndeye Niang né trésorier. trésorière pourtant li fa Birane Niang ne président yëpp fa la ma fekk ma nekk trésorière ndax man bima ma koy nekk mic mo néwon le président de la zone mic bu Grand Thiès. ma koy ñaanal yàlla au passage yalla na wér ak jàmm. yaramam dafa soutanté mais yalla ko yalla may wër nekkoon un président exemplaire nak mm-hmm. musul bëgg dara musul wër dara. lu dul lu ñëw mu teg ko ci yoon. waaw mais moom bi mu jëlee. bi mu paree Birane Niang bu mu ñëwee fekk ñu fa. Birane Niang bu mu ñëwee en tant que président waa zone hésité wuñ benn yoon ni ma yéen a bokk équipe kon da ngay génn nekk doo dootoo jël trésorier mu ne président mais xamoon nañ ne man du man maay bàyyi Birane Niang muy def lu ko neex ci xaalis ñoom ñëpp il la savait. xam nañu ak sa moom forum xaalis moo tax ñu. xam nañu ban genre la ñoom waa mais balaa ñu la dindi defal nga leen bilan xanaa bu leer. non balaa ñu laa dindi poste bi. ñoom may nañu temps nga def bilan. bu leer naa jox leen seen xaalis ak lépp. bañ may dindi defuma bilan defuma dara boobu zone mu ma ameel xaalis ndax final boobu dañoo yéex a jot subvention am problème mu ma lebal leen xaalis ñu eggale final bi li ci war def yëpp ma def ko. wuti ay proteste maa mus di wuti ay parrain hôtesse. xaalis bi kooku lebaloon waa zone kan. zone bi yëpp laa ko lebal kan naa en tant que bu fekkee am nañ problème mu xaalis da ngay able. te ñoom adopté woon ñëpp nangu lebal nga leen ñoom ñëpp leeroon ah, seen bopp. ñu de ñu ma ko. Ah, waaw bi ñu paree dañ ma remboursé. Babacar Lo ak Birane ñoo toog remboursé ma. kon juuru remboursement boobu sax du ma ko fàtte mukk wax naa leen fa parole yoo xam sax après dama dama ko regretter parce que lu ma leen waxul dama ko. mais bi nga yëgee ni sa poste service dir lañ ko ban réaction nga def bi nga yëgee ni yow dir nañ poste bi. parce que man xam ko yëgee bi ñu ñëwee noonu di def kii man a léegi Serigne Sène moo ne kii Pape Demba Ndoye moo ne ancien président étoile moo ne jigéen la kii jigéen la yéen ay góor ngeen comme quatre post lañu am soon trois yi na ko góor ñi xëccoo benn bi kii moom na jàll d'office comme jigéen léegi ñu tourné ne parité du fi am ay jigéen na jàll yooyu ci laa xam ne ñii am na lu ñu pare kon léegi bi ñu ko yëgee ba léegi déglu moom bi ñuy wax noonu mu ne leen Pape Demba tourné ni leen kii benn Birane président zone la nee ngeen da ngeen ko ñu ne Birane moom waaw président la ko am ku rëccale daa ne trésorier kay Birane nee na nekkatu ko dindi nañ ko ba jox ko keneen ci laa dégge wax bi après noo def bi nga déggee ne poste bi ma ne waaw après ah, demoo wala fenn. déedéet déedéet ci laa xam ne. am na xeex bu am ba pare. foofu laa comprendre rek bataay bi. léegi nag ma taxaw ma ak sëriñ bi ñuy pause ma ne sëriñ sëriñ ni ma euh, age bi du egg nañ ko fi yemale. dangay dem ñu xool nuñ ko defee ñu rek ñu woote ñu regle ça parce que ñii dafa am lu ñu lal ma ne ko li ñu lal piège bi ci laa leen di fekk si. mais d'accord naa damay bàyyi ñu def li ñuy def. jéem maa génne très poste délégué bi. ba ñu xam ne ñoom ñoo ma dindil seen bopp. léegi su ma paree. ma mën a réagir à ma façon. ah ok ah da nga bëggoon lépp dañ. ba mu leer ba mu leer na ba mu leer na ñoom ñoo def. yow nan la leeree ñoom ñoo def. parce que xam nga nu mu leeree. Ah. dañoo def seen benn groupe. Ah. def vote boo xam ne vote bi c'est illégal. parce que. ODCAV oh, boobu non fii suñu fii suñu ASC. parce que bu ñu doon jox dara amul vote mm-hmm. vote bi mooy. étoile bu ñu ñëwaan di wut ay délégué sax dañ naan rek nañ leen seet ñu koy yelloo diw ak diw ak diw yéen a yoon kan moo bëgg ñu waxtaan suñu biir ku ne dem. Ah, amul woon musta am ay xëccoo wala dara mais ñu ñëw ñu ne nañ leen voté lépp ma xam ne kon te d'accord nañ Birame ñaa génn d'office léegi man lañ d'accordul ma génn d'office ñu ne nañ voté lépp man mi porté équipe bi fekkuma fa dara xeex sept ans huit ans xaw ma sept ans amuñu ko ma xeex ba indi coupe zonal te li li gën a garaaw bàyyi ko ci ginnaaw mooy man bi may ñëw. quatorze départ laa waaw loolu la ba. mais quatorze départ lañ ma defal mais nga nga ambition ba fi moom moo nekk. waa déggoo am na ku ne ku ne Birane Niang eh, ci zone bi mës naa dégg nit di ko wax ni mooy mooy nu mu tuddati am na moo bu mu ko waxee daal eh, ba ma reetaan ko parce que zone moom ambition la rek Birane Niang équipe a ko indi ña fa ne ay équipe leen indi kon ñépp a war a am ambition nekk président zone su dee bëgg nañ dara quand bu fekkente ne dara lan ko lu dul liggéey rek la. ku ne wax nga am ambition kon ban poste nga fa nga fa occupé man euh, délégué simple fa jëluma fa benn poste doonuma fa dara. mais sa retour étoile yaa ngi koy imagine yaa ngi koy envisager waat wala. mais dama lay may dara. Hmm. man euh, Ousmane. naqar bu ma amoon waa Concorde dañ koo faj. Ah, kon mënu ma def émission bi te du ma remercier waa Concorde. Ah. parce que gis nga bi ñu defee seen lobby boobu ba voté ne dañoo voté du ma la nëbb de ci biir vote bi bi biraan ñaa voteel na ma. il a pour moi mais vote bi amul woon sens. xam ah, nga bi daal moom da nga génn étoile rek foo dem ànd na si mais étoile moom doo fa toog. voteel na ma de bi ñu def vote bi pour ne dañuy éliminer bi daan a voté pour moi voteel na ma bu leer Assane Seck ñoo nekk ndowoon zone il a voté pour moi. mais groupe bi mooy kaldu ba ak groupe am ñoo defoon ak xale yu mu indi woon yoo xam ne man li ma ne étoile des président kaldu ba mosu fa cotiser cent franc man li ma ko yor yëpp ba jël ko du jéggi jaañ moom ma doon xeex. du groupe gi mu àndaloon ñu may xeex amu ci ku sa 100 francs nekk ci liste bi ñu cotisé. d' accord émission baa ngi jeex mais nday yow concours moom fajal nañ sama d' mais man it ma fajale ñu damaa gëm ni ñi yàlla gën a teral man ci laa bokk. te gëm naa ne aussi du ma mës a torox ci kaw. yow yàlla teral leen ginnaaw loolu c'est vrai gis nga bi ma leen wanee ginnaaw un joueur boo xam ne Cheikh Ndiaye c'était le capitaine de l'ASC moom moo jël coupe bi sax keroog moo dugalon bi bi mu bindoon yëre mayo bi nday ñaa pour nday ñaa mm-hmm. koku mo taxaw ni len yeen du ngeen rus jigen bu liggéey équipe ba indi li tay bu don taxaw sen kaw waroon ngeen a jox mais étoile xalaat nga ko wala man ah. eh, bien vrai ah pour delu wat étoile jël li nga jël li nga mom étoile mm. étoile man may étoile yow loolu moom ko laccé wax nañ mako daal étoile man may étoile d'accord may maay moteuru étoile man c'est vrai te billahi may étoile bu jaxan si na man la may étoile waaw étoile ku mu mës a réserve waaw daaneel la. Mm-hmm. preuve la daaneel maa ko. non ñi ma laaj ñëpp moom na yaa Edouard. loolu moom c'est vrai. est-ce que man ëmb naa ba am 9 mois. waaw Edouard ma waa jàmbaar ma mere ndax samay dooma fa ne laa. mais keroog ñuy wër preuve yi ñu taale kër Birane Niang maa génne preuve yi Birane Niang n'était même pas là. day fi mu nekk nii kay moom demee. di wër ay preuve émission bi day waay jeex ba génne preuve ñëw keroog sama jëkkër ci biti la ma fanaan loo ndax mer ni ma ci biti laay tëdd parce que du dem ba 3 heures du matin ak grossesse su 9 mois ngay dem di wëri résultat pour ASC. waaw fi mu nekk nii kay comme euh, li nga wax leer na loolu seen euh, jigéen a ngoog. seen euh, membre la xam la bokk. moom vraiment ngeen yaatal ko mu ñëwaat comme ça parce que ASC yi aussi. te créé wuñ ko pour koñ bi di xar ñaar. dañ ko créé pour mu doon benn. Mm-hmm. vraiment li lépp ngeen fàtte ko. xam ne seen jigéen la ci la bokk. waa Concorde aussi ñu comprendre xam ne moom étoile la bokk bu fa Concorde étoile benn la. déglu ma rek déglu ma Concorde. léegi wax day loolu fi xaj léegi may na ma tëjee foofu bu neexee sa ngeen éliminé yu njëkk yi mais may leen ma ma tëj gis nga Concorde. dama loolu loolu Concorde bu trophée yi nekkon tay 10 caisse damay ñaan yalla ñu jël 10 yépp ah xam nga lutax ma leen koy ñaan nit boko suturalé téral ko yalla da la wara délo ñukkelu téral la concorde suma sañon yalla téral teral leen ba ñëpp tek ci seen bëtt coupe yi ñu géej am at yi yépp yalla suñu borom may leen ko xam nga lutax tax bu dee politique lañ ma xeexee fële ndax Idrissa Seck laa andal bay lolu man concorde ñu ko idrissa ñëw affaire la ñu nekk ndax kër kër kër ministre bi nga xam ne koy dégg muy Euh, le ministre de l'éducation, oui l'autre là euh, nous te tuddati. des politiques. Des politiques. non politique a des politiques ministre, ministre ministre ministre. Qui... est nga la ministre, ministre, ministre eh, mais Concorde le deuk ku ne xam nako ñom Ibou Diagne ministre, ministre, Ibou Diagne mom seen xam nañ APR mais Ibou Diagne mom mo ba ma Concorde. bi mu yëgee affaire bi man egguma sama kër bi ma génnee assemblée générale étoile egguma sama kër lama wo téléphone ni ma wuy sima ma ko duma ñew mu ne ma ñëwal ma concorde mu ne ma dégg na li la wa étoile def mais duma ko sétane parce que yow kat nga moteur équipe ASC Concorde vraiment mi ngi leen di gëreum kon dama lay jappalé may ma rek dama leen di vraiment mi ngi leen di ngeen ko jappalé waa xam nga aussi femme de développement mais xam nga bi ma yegsee. ndey Congo la fa nekk waaye non dañ maa xeex pour bañ ma nekk délégué. waaw ma egsi ma ak euh, ak sa borom kër sa borom kër aussi du sama borom kër yëgu ko il était le dernier informé sa borom kër bëgg nga am gàcce d'accord sama borom kër yëgu Adama Ndoye moomu nga gis muy délégué zone ak Mañaa Diop Mañaa lañ jëloon Adama Ndoye Ousseynou Ka Adama Ndoye ak Mañaa Diop ñoo doon xëccoo génn pour man ma dugg délégué tam néanmoins xeex bi arrêté wuñ ko ñoom Jéggi Jaañ demaat nañ ba biir Concorde li leen lu tax ngeen di bàyyi ndey ñaa ngeen koy def délégué te dëkkul seen koñ. d' accord loolu moom vraiment. yow xam nañ ne beneen boobu xeex metti na. waaw day si une rek nga wax ñu yow bu dul nawetaan aussi femme de développement sa jëm xam nañ ni Sénégal mi ngi ci guerre ci Covid bi. Mhm. nday Adja Ndeye loo defagul ci Covid. ci lu Covid 19 bi moom ku ne xam na ne Sénégal mu ngi ci guerre man maa ngi ci bu baax ndax man femme de développement laa ba pare bàjjanu gox laa aussi kon ñun bàjjanu gox yi defe naa ne suñu rôle moo gën a metti ñun ñooy dox ñooy wax ñooy sensibiliser ñooy waxtaan ak askan wi ñooy waxtaan ak xale yi ñooy waxtaan ak mag ñi raxasu yeeg lépp dañuy wër di sensibiliser ñu ngi ciy def lu ñu mën man danaa maye ay gel alcoolisé dinaa joxe ay masque lépp maye naa ko defe naa ay masque ay gel ak yépp maa ngi nag sant di gërëm di remercier waa ASC Concorde bu baax mënuma leen a fay. Concorde bu ma fa jógee man la neex. waa étoile bi ñu ñëwee délégation jéggalu ma ay yoon yoon nag jéggalu sa ñëy xale yi àndoon ci yëpp yi te defuñu ko dañ leen a nax xamuñu woon nu mu demee def nañ délégation ba tàyyi ñëw sama kër jéggalu ma te biñ ma jéggaloo itam dama leen jéggal naa leen ñu ne ma dellu si man leen doom ba tànk ASC Concorde laa boot dem ak a te man duma ma jaam jaam mooy war te ndomba bii jeexul ci man. ba may bàyyi concorde di dellu si étoile mais bu fekkonte ne tey du woon doom ba tànk bu ma boot dama naan bu doon damaa toog sama kër def ni togal nañ ma ba yàgg taxañ ma ni ma ñëwal ci activité équipe bi mais man maa leen xamal ni leen damaa boot doom ba tànku jàmbur te doom ba tànk boobu dama koy sàmm ba keroog muy jeex te bu jeexee tamit ma xam ne jeex na su ma waree dellu si dellu su ma warta dellu si tamit toog bu ma neexee sax bàyyi nawetaan. mais nag ko am ambition di ko topp. dëgg la moom te man damaa am ambition nekk présidente zone A zone 3A. waaw loolu lépp loolu dégg ngeen ko waa zone dégg ngeen ko nday Ndiaye moom vraiment ku bëgg ñëw jiite zone bi la mais émission bi mi ngi tiré à sa mais nag li nga xam ne bëggoon nañu ko lancer comme message mooy am na benn délégué boo xam ne mi ngi nekkoon Concorde Adama Ndoye moom si ëtt sportif boo xam ne bokkul ak dara nawetaan fa la wax fa benn lim fay wax. waa nawetaan suspendre ko suspension moy mom bu ñëwé stade bu taxawé ci main courante bi dañuy wax OPA pour mu jëlé ko fa ta mom délégué zone la yu mel noonu ODCAV dañ ci wara a parce que nawetaan ñëpp ko bok ñëpp ko mom il faut tamit ñu arrêter parce que nit ñi dañ leena fal pour ñu ñëw nawetaan bañ am violence mais yu melni ni une violence nit ko xamné fam waxé mu waxee bokkul ak benn instance nawetaan kon ñu interpeller ñom euh, Ousmane Diop ñom Baylo Bass yéen xamné ñi yéen yi pour ngeen xol li am ci zone yi ki suñu sœur bi lii mu wax bu fekkente ne loolu moo am ñu jékki ci génne ko si zone bi noonu loo xam ne vraiment teguñu ko fenn yu mel noonu aussi il faut ci waxtaan xam ne nawetaan bi kenn moom ko fola ak kaf ak ree pour lépp loo xam dañ ko ci def yéen ñu ko jiitee ngeen di xool di di saytu di waxtaan di xool nan lañ def affaire jaar yoon mais koñ mënuñoo délégué ay nit jiital leen ñu dem fenn pour lépp ñi si kaw di leen def loo xam ne dafay indi ëllëg yoo xam ne vraiment dafay nekk loo xam ne dafay euh, dafay yàq mouvement bi te vraiment bu ñu sañoon du yàqu kon nag euh, ñu ngi leen di gën vraiment di leen sant di leen xamal ne lépp loo xam ne yàqu-yàqu na si ñu ngi leen ciy jéggal amul nag amul nag intention attaque kenn amuñu intention waxal kenn lu ñaaw lépp loo xam di nga ko wax di nga koo vérifié bu mu leer kon ñu leen di gërëm di leen sant di leen xamal ni vraiment seen beneen émission mi ngi leen di xaar si euh, jotaay nawetaan ci biir di ñëw di leen wax aussi bu leen fàtte suñu di wax Adja Ndeye wax aussi bu leen fàtte suñu sponsor bi di audi Bawol nga boobu jox nañ ko Odi Kayor jox nañ la ko nga jël ko vraiment moom mooy moom mooy sponsorisé émission bi di leen gërëm di leen sant dana aussi bu leen fàtte aussi seen di abonné chaîne bi seen xéwal TV waa ñu ngi kaas na émission bi gàtt na kon madame la directrice ñu ngi lay ñaan ñëpp ñu fi jaar ne émission bi dafa gàtt kon pour nga yokk temps bi. Ousmane maa ngi remercier bu baax waa étoile mag ñi nga xam ne ñoo ŋànk étoile nag ñoo tax may wax ku ne ay Serigne Sène ku mel ne ay Mahi Mamadou Dia ku mel ne ay anciens joueurs yooyu ngay wax Pape Sow mi nga xam ne gardien la woon ba pare moo nekkoon sama coach bi ma nekkee euh, présidente ASC bi. di remercier ñu bëri ci biir étoile ñoo xam ne xëy na bu ma nekkee di lim sax liste bi du gaaw a jeex mais maa ngi leen di remercier bu baax di remercier ñoom basiiru Dione ñooy nga xam ñëpp sama départ metti na leen ay Ibra Dieng ñoom ñëpp maa ngi leen di remercier parce que ñoom ñëpp amu ci koo xam ne tey sama génn étoile bi nga ko déggee neex na la wala lu nga ko kon ñoom ñoo ñëpp ma leen di remercier di ñaanal yàlla aussi waa étoile gépp ndax étoile moom man man maay étoile ma dellu waxaat la ko bu ma leen ñaanalee sama bopp laa ñaanal Euh, di jéggal aussi ñi nga xam ne ñëwoon nañ sama kër di ma jéggalu parce que par erreur lañ leen boolee ci lobbying boo xam ne xamuñu ko woon xale yooyu doon def délégation di ñëw sama kër maa ngi leen di remercier bu baax ñoom di leen jéggal di jéggalu ñëpp aussi di ñaan yàlla aussi yàlla defal ñu jàmm defal ñu sutura di ñaanal aussi waa ASC au Concorde yàlla may leen ndam yu baree baree baree baree bare di remercier sama borom kër Mouhamed Touré mi nga xam ne soutenir na ma dans les moments les plus difficiles jàppale na jàppale na ma ci biir jàppale ma ci biti football na étoile ndax man sol mayo étoile ndax man comme yeneen joueurs yi ko sol ndax man yépp di ñaanal Cheikh Ndiaye fa mu ne ci Côte d'Ivoire yalla suñu borom defal ko fa jam mom mi nga xamni ne aussi ma tax mu gedd mayo AC étoile ma diko ñaanal bax di ñaanal ñom gañ ñepp dal bu ma damay jum étoile gep ma ngi leen di remercier waaw ñom ñepp dal manam ñima fa xex ak ñima fa xexul woon ñepp parce que won na leen yalla won na leen yoon jaara nañ ci gis résultat équipe bu jël coupe xex nit tax ñetti at nga tégalé ko do génn premier tour kon lool doyna résultat wa salam